te da xam ni en tout cas am na cofeel ci réewam am na cofeel ci askanam mm-hmm. te dina xeex pour que réewam askanam euh, li ay intérêt ñu mën ci jot ñun loolu lañ doon xaar maanaam ay nit yoo xam ni Mahfous dañuy jiital seen intérêt dëkk ci lépp lu mën ci doon mm-hmm. surtout ministère bee bu nekk maanaam intégration africaine dañu ci jiital mm-hmm. les africains d'abord avant euh, bu ñu <laughs> bu defee le sénégalais d'abord nañu def après les africains d'abord parce que ñoom ñooy suñu mais union européenne Europe gee la moo tax ñu am doole parce que dañu booloo te nekk benn. doole seen ay doole fexe ba am benn monnaie unique. monnaie bi am doole ci àdduna bi ñun loolu mooy suñu priorité loolu mooy suñu xel boo xool Cheikh Anta Diop nga koy déglu eh, ci ay euh, bindam yu ci baree bari même ci mm. conférence yu baree bari yoo xam ne da nga koy seetaan ma ko ci wax mais dafa yàgg prôné à ce que les africains ñu fexe ba d'abord jiital seen i làkk mm-hmm. nit réew mën da te utiliser wul làkkam moom. nga koy jéggaane lépp nga jéggaane bitim réew. mais France bee. ñun kay lépp dañ ko jéggaane làkk bee xaalis bee lépp. lépp lépp lañ ko jéggal ñun yàlla def ñu jox lu lu loo xam ni. te am nañ lépp am nañ lépp. mais euh, la la la langue wolof. làkk wolof booy xool fii presque man nga ni quatre-vingt-dix pour cent des sénégalais dégg nañu wolof. Mhm. France ñoom ba ñuy jël di ko jëmal. Mhm. yaakaar naa ñi ko waroon wax est-ce que duñu noonu ay vingt-sept pour cent je ne sais pas. Mhm. ak ñu motuñoo sax trente pour cent. ñun ak quatre koo ci ni salaamaaleykum koo ci na nga def mun la maa ngi fi. léegi nag ñu bëgg ñoo gëmloo que ni loolu daal moom. faaw ñu teg ko ci suuf oh, hmm. ok pour quelle raison kon ñooñu dama yaakaar que ni il faut que nag ñu jëmmal seen i gis-gis. Hmm. jëmmal seen i xalaat parce que dama jàpp ni loolu moo nekk solution bi mais buñ ci paree ñu fexe nag naka la ñuy fédéré woo euh, nous en tant que pays voisin ñu xool naka la ñuy boole suñu ay doole pour nag euh, mën a tabax parce que loolu mooy li ci ëpp solo mais imaginez réew bu ci mel ne Sénégal Guinée. Mauritanie eh, autres pays yi nga xam ni tey suñ borom daf leen a jox ay ressources ay gànjar yu gànjaru mhm. ak ah, jox leen suuf suñu gàññ mais ñoo ñu boole seen doole nekk benn défendre seen intérêt dëkk ba pare booloo nekk benn kan moo leen mën a résister mais bu dee kay ressource humaine am nañu ko mhm. liñ ci am ci qualité mais kenn ressource naturelle tamit am nañu ko lépp ah. la am mhm. kon loolu tubaab yi loolu lañu xam xam ah. man j'étais très content bu gisee le français di ñu attaqué maanaam pour la te damay gis des fois damay dem même yeneen pays les pays africains dañuy kontaan ñu naan euh, Sénégalais yi léegi ñu ngi soog am seen indépendance parce que saa yoo gisee. Mhm. tubaab bi di attaqué. benn gouvernement Sénégal rek xamal ni ñooñu ñu ngi ci. moo tax Sénégalais nañu yow nañu xam instant bi lan la ñu am. Mhm. gis nga fi mu ne nii lii nii Sénégalais yi nañu tàkk ñoo ñëpp ñu jàppale leen parce que ñii dañu fi ñëw pour intérêt askan wi. Mm-hmm. buñ fi ñëwoon pour intérêt tubaab bi nga gis tubaab bi commencé leen tàggal seeni i maam ak ñi leen xalamal mais instant bii nii euh, ma euh, <laughs> France 24 la xam moo safut naa ba ñu tudd tour sax <laughs> naa ba ñu tudd benn presse mais mais mën naa tudd presse ah parce que man maa leen seetaan maa leen suivre dégg la ñuy wax xam la ñuy wax mm-hmm. euh, bu ñu commencer di diaboliser man dama ni damay toog fi ma toog sama xol bi sedd guy ma ni daal ren jii daal xam naa ni c'est c'est une autre année comme ko mm-hmm. waaji noo c'est un autre jour boo xam ne bu spécial yàlla eh, ci réewu Sénégal te jàpp naa ni eh, mën nañ fi jóge am départ boo xam ni incha allah eh, mën nañu teeri foo xam ne nit ñi sax doonuñu ko woon foogee. Mhm. c'est important mais tamit leneen loo xam ne si nii nit ñi bàyyi nañu ko xel muy euh, Aminata Touré ah Aminata Touré. Mhm. ku ne xam na ni ñu bëri doon nañ ko xaar ci gouvernement bi. Mhm. Euh, Dame ci également euh, ñu bëree bëri doon nañu ko xaar par rapport ak taxawaay bi mu bi mu amoon na ci ci combat bi ñu bëri sax dañu ko doon wax naan mënoon nañu ko jox le ministre de le ministère de de l' éducation Dame ci zappé mhm. de même que euh, Aminata Touré mhm. noo ko noo ko jàngatee bon man je pense que zappé peut-être entre guillemets. Mhm. mais ba léegi ñu ngi ci ñu ngi ci ossature bi ba léegi ñu ngi. gravité ah? waaw mën nañu ñëw mën nañoo mhm. ñëw. comme par exemple euh, Aminata Touré Aminata Touré je la vois très bien comme représentante du Sénégal auprès des Nations Unies parce que elle connaît la maison. yàgg na fay liggéey. donc euh, dafa am ay profils yi nga xamante ne euh, foofu yooyu lañ leen di soxla peut-être man a ah, ma yaakaar ne loolu moo tax kenn dugaloo leen ci gouvernement bi Dambodj. Dambodj boo xam nga boo nee ministre de nationale peut-être que je je n'ai rien peut-être que. ci diine sax nit ñi ñoo ko ñi ñoo ko doon wax ñi ñoo ko doon wax. mais boo gisee tey jii euh, Moustapha Guirassy buñ ko buñ fa teg euh, da ngay naan ok. Mhm, parce que Moustapha Guirassy kenn mënul ne il peut pas être un bon ministre de l'éducation nationale du Sénégal euh, profil yi nga xamante ne peut-être ñu ngi woon ci alliés wala ñu ngi doon gravité autour de la coalition gisul ngeen ci gouvernement bi comme ne wax sànq rek léegi nga déggaat leen ci yeneen yeneen yeneen yeneen secteur d'activité et ils vont à servir la nation servir la République ils vont mm. qu'on également à servir le projet c'est-à-dire servir le Sénégal mm. donc je pense que y a pas péril en la demeure ñooñu boo gisee sax ñoom ñoo njëkk génn di féliciter ñi nga xamante ne ñooñu lañu tabb ci gouvernement bu bees bi donc c'est une équipe c'est une mm. équipe ah c'est une équipe bon peut-être que day am onze titulaires mu am ay remplaçants remplaçants yi tamit xëy na gouvernement bi du fi nekk du fi nekk voilà yëpp day amaat ay remaniements ay remaniements ñi ñëwul woon nañ ñëwaat mën nañ ñëwaat waxee ñi dañuy dugg après ñi génn ñi génn ñi génn génn l'essentiel en est c'est le Sénégal qui va mm-hmm. en profit euh, c'est voilà la rupture aussi qui sera beaucoup plus matérialisée tamit euh, yaakaar naa ni bon fii ak fan yi di ñëw nañ euh, nemmeeku yeneen nomination dans les postes de direction et peut-être qu'on aura dont on parle tout à l'heure ci direction yooyu d'accord Kébé l'absence de Dambo ak Mimi Touré et tant yoo xam ne si ni tey fesoon nañu ci mais finalement euh, ñëwuñu ci. xam nga gouvernement bi lan la ñuy yeewee lan la ñuy bo hmm. bon gouvernement gouvernement yu fi jot a jaar lan la ñuy ñeewee gouvernement bi mooy euh, dañu am une richesse en ressources humaines. Hmm. tey ku ne xam na ni ñi nga xam ni ñoom ñoom ñoom ñoo dugal ci gouvernement bi ñu ci ëpp a bari ci ñoom ñooñ rek mën nañu gouvernement. <laughs> dañ koy wax équipe boo xam ni banc de touche bi rek dafay mat eh, ña fay nekk dañuy mën a nekk titulaire mm. mais loolu dafay tax tey <laughs> même bu ñuy jógee ñëwaat du ñu doon ay njalaxaat mm-hmm. ñun régime yi fi jot a jaar gis nañu ñu fi nekk ministre yoo xam ni chef de quartier sax a a nekk dugal nii dina tax ñu ñu ñu ñu bu baax a baax parce bu ñuy defee bu ñuy liggéey rek mooy keneen day ñëw il faut mu yee la mayo loolu sens boobu ñoon dañu ko am mm-hmm. et loolu Sénégal Sénégal Sénégal rek moo ciy gagné. Mhm. Sénégal rek moo ciy gagné te mais et puis gouvernement boo xam vingt cinq ministres la mais ñëpp mënuñu dugg nañu waxante dëgg. Mhm. mooy ki moo euh, entraîneur bi classe onze ñooyam ñëpp mënuñu dugg il faut que am ñu dugg am ñu xaar. Mm-hmm. te comme ni ñu ko waxee ñii ni ñu tabb nii bon ñu leen di ñaanal ñu ñu ñu ñu def lu fi kenn mënta def mësta def ñu am mandat wu cinq ans. Mm-hmm. mais euh, ku ne xam ne ni euh, loolu mënta continuer te même loolu bu jàllee te ñu def résultat bu am solo Sénégalais yi dénk wóoru leen falal leen itam ala kulli xaal changement dina mën a am remaniement dina mën am te dans ce il faut ñu soxla ñeneen ñoo am xarañteef gi kon ñi amee compétence am am am xarañteef gi ñëpp ñu ne mënuñoo duggandoo il faut que am ñu dugg am ñu des hmm. loolu il faut que nit ñi comprendre ko ci démb damay seetaan mais ñoom ñoom comme ni ma ko waxee moom ma utiliser kii mu ngi koy wax léegi c'est un peu fort mu hmm. zappé hmm. mais euh, waruñu ci waruñu ci gis seen boppam ah, parce que tamit dañuy xam ne ñi ngi ñi ñu fa teg am nañ fa place. Mhm. c'est-à-dire li mu doon metti mooy ñu teguñu la fa pare teg ko koo xam ne si ni yow tey yow. yaa ko ah. yaa ko gën a compétent yaa ko gën a yaa ko yaa ko. mais xanaa xamoo ñii ñoom li ñuy def nii ci la ñuy ëppee sax parce que ñoom bu ñu toogee. Mhm. ñuy observer. ñi nga mhm. xam ne ñoom ñoo toog. képp ku ci def faay ba ñu ba ñu génnee la indi sa morom mais yow di nga am sensu faay boobu noonu nga mën ko éviter. mais aussi tamit di nga am tuuti expérience parce que di nga fekk jàng nga. Mm-hmm. parce que yaa ngi ci seen biir ñoom di am loo xam ne jàng nga ko loo xam ne boo mais boo dikkee. Mm-hmm. di nga def mieux que ki fi jógee li mu def. Mm-hmm. loolu pour man ñoom dañoo dañoo am sens boobu noonu. kon euh, yaa te man gisuguma ci wala dégguguma ci kenn message man ñu ci bari maa ngi leen di topp ah yi ñuy bind mooy que ñu ngi félicité ñu ñu tabb mais aussi tamit ñoom instant bi pare nañu pour euh, euh, liggéey seen réew mm. mais ay dàmboo yi ngay tudd ak ñeneen ak ñeneen mais assemblée nationale d'ici peu de temps gars mën nañ ko dissoudre mm-hmm. mën nañ ko dissoudre tey ah, mais euh, ma xol ci mois de juillet septembre septembre septembre lañ ko war a mën lañ ko mën a dissoudre mais ñooñu noonu kenn ku ci nekk ñoom war nga mën a nekk député nga dem maanaam. affaire bi du ministre du ay ministère rek la ñu mën a liggéeyal Sénégalais yi. Mm-hmm. dafa affaire bi Ousmane Sonko dafa yaatu mm-hmm. kenn ku ci nekk fa nga féete man nga ca bay sa waar mais mm-hmm. kenn ku nekk ci ñoom aussi tamit mais cette commune. mën nga fa dem nga samp seen dina nga laaj. ah way nga dem bay ci sa wewu tànk. nga hmm. commencé foofu noonu nga liggéeyal fa askan. pourquoi coûte que coûte dañu war a dugg ci gouvernement bi. Hmm. am ñu génn ru ñoom sax waxuñu ko mais ay ruubekat ruube man naan non ñii ils ont été devant euh, ay militants au premier rang la ñu lu tax joxu joxuñu leen dugaluñ leen ma ne. loolu ñooñu ay tàppalekat lañu ay ruubekat lañu te buñ leen déglu fi mu ne nii dañu euh, toll ci tabax réew te ay détails yeeg nii waruñu mën a tardeel dañu war a focus ci li nga xam ne moo di mooy l' essentiel pour que ñu mën a euh, liggéey li nga xam moo ñu dem sànq maa ngi koy wax Maître Ngagne Demba moom rek daf ci joxe exemple mm. bu bu leer naññi moom dafa sacrifié wu pour projet bi mm. ñu bari ñu ngi doon xaar ci poste ñu jox ko xëy na premier ministre de la justice mais joxuñu ko ko tey la gën a engagé wu ci projet bi tey la gën a pare pour ànd ak ñoom liggéey ci li nga xam ne moo di projet bi li hmm. moom mooy wax ji mais bari na ci ñoom mais kenn ku ci nekk mais Mahfouz tey boo nekkee enseignant wala nga nekk professeur mais classe ba nga nekk di jàngale rek yow boo fa boo ko tegee ci yoon foofu rek mën nga fa liggéeyal sa réew hmm. mooy former la foofu rek mën nga fa li kon affaire yi dafa yaatu. bu ñu bu ñu xëccoo maanaam séentu asamaan la. Hmm. jarul buuxante. kenn ku ci la nga nekk boo ci boo ci boo ci. mais Mahfouz nit ñi waaw ni mu war a demee ni mu war a demee. dina Sénégal Sénégal moom moo ci bénéficier te hmm. Sénégal mooy. xam nga dinañ wax gouvernement mais Mahfouz yow mi yore sa micro. yore sa xalima di bind di informer mais yow rek li ngay def boo ko tegee ci yoon mais yaa ngi yaa ngi liggéeyal sa réew. Hmm. <laughs> yaa ngi liggéeyal sa réew. kon nit ki ki même ki nekk ci di dox ci mbedd mi sax gis mbalit mu foor ko def ci poubelle kooku mi liggéeyal réew mm-hmm. kon liggéeyal sa réew dafa yaatu nañu ubbi dënn yi yaatal xol yi kenn ku ci nekk xam ni fa nga nekk mën nga fa liggéeyal sa réew mm-hmm. ci anam ga mu gën a mucc ayib loolu gis nga bu ñu ko defee ci suñu mentalité ci suñu xel yi mm-hmm. amul rien ne pourra nous arrêter amul lenn lu ñu mën a arrêter kenn ku ci nekk nag fa ñu teg sa morom nga yéene ko ko te ñaan suñu borom sax mu yokk ko ah oui boo yéene ñëpp jàmm am jàmm mais gis nga bu fekkente ni parce que kebe si kibam bi dafa weng kan yi fañ ko teg waru fa toog mm. te yàlla teg ko fa mm. ci xol bu naqari ngay dëkk mm. di di misère ak di di di di di stressé wu te loolu pour man kebe kebe tegu ko